Merci beaucoup, merci. Salam alaikum. Salam alaikum Sénégal. Salam alaikum Dakar. Salam alaikum Biscuiterie. ñoo di nuyu bu baax kenn ku ci nekk ci turam ak santam di si jiital nag kilifa yi nga xamanteni ni dalal tay ci Biscuiterie yaatalal ñu yoon bi bañu mëna dugg si mak salam muy le maire Djibril Wade ñu bëgg ngeen tacc ko bu baax. di ci ñi nga xamanteni ñoy kilifa yi nga xam la caution morale de la coalition sam sa kaddu muy Serigne Moustapha mustarshidin moustache mustarshidat c'est quoi C'est quoi Moustapha Serigne Serigne Moustapha a été de tous les combats démocratiques kon Serigne Moustapha du ma ci taxaw lu yàgg su ko wóoroon ne sàmm sa kàddu nekk ci ay tappale la nekk kon du ñoo bokk sàmm sa kàddu di gërëm bu baax gërëm bu baax koo xamante ni tamit il a été de tous les combats ba mu nekkee ndawam ba tey dafa jël dundam yëpp jagleel ko askanu Sénégal jagleel ko waa Dakar ñu daal di koy jël teg ko injustice bu nekk tey mu continuer di taxawal Sénégal di taxawal Dakar je veux le président Khalifa Ababacar Sall. di gërëm di gërëm ñi nga xamante ni ñoom la ñu di gërëm ñi nga xamante ni ñoom andal ñu àndal tey te budul woon budul woon dama bëgg bu baax ñu déglu ma comme Sénégal léegi dafa bëri ay manipulateur wax jafe fi lool dama bëgg ñu déglu bu baax ñii ànd tey ci intercoalition bi su dul woon seen bëgg Sénégal su dul woon seen xam état su dul woon seen xam danger bi nga xamante ni mooy gete Sénégal su dul woon xam ñi nga xamanteni hen ak revanche mom mo sen xol ba ñaari taluñu liggéey tal sutura utiliser la justice pour règlement de compte liñu tal moy bëgg utiliser ONAS ak ASER pour enrichissement illicite kon ñi tay ci intercoalition bi kon loolu mooy justifier li nga xamanteni tay mo moo waral kilifa yi ànd Dakar yep dal ne sam sa kaddu lañuy ñuy voteel muy intercoalition takk walu ak jàmm ak ngirign ànd ak sam sa kaddu pour dimbali senegal kon loolu moy justifier loolu moy justifier l'intercoalition

L'un ludul dimbali Sénégal kon intercoalition bi duñu ko meuse Nous acté dañu ko acté parce que dañu xamné que moy dimbali Sénégal c'est pour le bien des Dakarois c'est le pour le bien du Sénégal c'est pour le bien de la jeunesse sénégalaise l'homme moi justifier la pertinence de l'intercoalition beneen bi ma bëgg Dakar comme tay Dakar lañuy dit bu tiadjay la ñuy tamit la même chose lay def mais comme tiadjay comme tay Dakar la ñuy je ma bëgg ñu xamné le choix de la tête de liste de Dakar est un choix réfléchi est un choix mûri est un choix pertinent et on ne pouvait pas mieux faire pour Dakar je veux nommer Pape Babakar mbeng tay tay So jele ñi nek la de Dakar motax Dakar bu len juum Dakar bu len juum ñi ñu tan pour Dakar muy pap Babacar mbeng un maire irréprochable et exceptionnel muy muy Ndeye Top nga xamanteni ni pour ci ay eh, sunu jigéen Ndeye Ngouda Diène nekkoon une brillante parlementaire muy Joseph Sarr docteur Joseph Sarr n'est kilifa bu mag partie parti démocratique sénégalais muy euh, muy le monsieur le maire Cheikh Ahmadou Bamba Fall de la Médina ak kilifa yi nga xamanteni ni ñom lañu la rawati na ki nga xamanteni ni moy le grand maire de Dakar muy Jean Baptiste Diouf kon ñi ñu pour Dakar ce sont des Dakarois yo xamante kenn du fan la dëkk du natable bi amal Dakar kon Dakar bu mu la liste sam sa au-delà des militants des entités qui composent la coalition au-delà des militants qui composent l'intercoalition les Dakarois et les Dakaroises qui ne s'identifient pas au parti politique doivent faire le bon choix qui est le choix de la raison qui est le choix le plus pertinent oui sàmm sa kàddu pour Dakar benen bi nga xamanteni fofu lay ñew ma ne damay bàyyi ba cité liba ba ba doko lim il faut corriger le les erreurs monumentales du régime de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye bokku na ci erreur yi gëna mag biñu def ngeen may ma tuuti bokku na ci erreur yi ñu gëna def ñom recruter wuñu secteur privé banque teud ci souf tey jii rek ñoy recruter ci réew 42 chargés de mission yeen ne xam ngeen la vocation d'un état c'est pas de créer c'est pas de recruter la vocation d'un état c'est de créer les mécanismes pour permettre à un secteur privé viable de pouvoir embaucher et de résorber le gap du chômage Les guignols, les guignols, non seulement recruter wuñ waaye Bougane Gueye Dany bi recruté dañu ko tëj ne ko ràpp ci kaso bi tey pour ne ko doo fi recruté kon dama bëgg dama bëgg a dégg libéré Bougane Gueye Dany libéré Bougane Gueye Dany libéré Bougane Gueye Dany libéré Bougane Gueye Dany libéré te te maa ngi leen koy wax keroog ci Tamba ak Bakel sénégalais yi am ngor ak jom yépp am nañu gàcce keroog koo xamante ni da ngaa jóg dem pour dimbali ay nit yu nekk ci ay jafe ñu jël la duma la ci kaso bi yow dimbalee too nga bu kenn dimbali loolu mooy bu njëkk bi ñu demee Tambacounda te ñoo ngi jëm 30 Tambacounda le 30 incha allah Nous avons fay rendez-vous sénégalais et pris de paix et de justice pour exiger la libération immédiate et sans condition de Bougan Gaïtani pour nous continuer le combat victorieux au soir du 17 novembre 2024 D'exiger aussi la libération commissaire Cheikhna Keita suñu ko libéré parce que li muy wax du deug dañ ne ko dañ lay tej parce que dañoo bëgg nga wax ñu ki la wax li moo tax ñu téye Ahmed ndoy mi len Ahmed Ndoye ngi ni ñu rap ci kasso bi nous demandons la libération sans condition de Ahmed Ndoye nous demandons la libération de tous les détenus politiques du Sénégal mais nous demandons aussi la libération de la jeunesse sénégalaise tout court manipuler nañu manipuler nañ té de dama bëgg ñëpp dégg cette coalition aujourd'hui incarne l'espoir de la jeunesse cette coalition je mo pour dim pour ndaw dalal xelu kon kon bu kenn la tête liste bu kenn xelu xelu kon encore une fois chômage baa dinañ ci dellu siwaat ci biir campagne bi logement social kenn mënu ko am dinañ ci dellu siwaat ci biir campagne bi émigration clandestine baa ngi rey nit ñi dinañ ci dellu siwaat ci biir campagne bi leneen li mooy les libertés individuelles et politiques dinañ si dellu siwaat ci biir campagne bi ak tey ji ni ñu nërmeele li nga xamante ni moom mooy kàddu amatul tekkeetul dara ci réew mi tey ndax ñi nga xam ñoom ñoo jiite réew mi depuis juróom-ñaari weer beneen bi mooy L'opposition sénégalaise doit gagner le 17 novembre pour permettre au Sénégal, pour permettre au Sénégal, pour permettre au Sénégal d'avoir enfin un président de la République bu Toki a toog bi Diomaye li mu wax bi mu au secours le peuple permettez-moi de s'asseoir sur le fauteuil Li rek la wax dimbali leen ma ma sur le fauteuil parce que dama chatou, comme dafa chatou. Té que crise institutionnelle le fiy la meilleure manière de rendre service aujourd'hui à Bassirou Diomaye Faye c'est de gagner les, élections et d'imposer la cohabitation pour corriger li nga euh, le pays damay jeexale nag ak ki nga xamante avant may jeexal ma bëgg ngeen defal standing ovation les autres grands leaders de la coalition Sàmm Sa le président Thierno Bokoum de Agir qui un travail remarquable De bëgg tamit une grande dame de valeur une championne une championne une championne du secteur privé national une championne du secteur privé national kon Anta Babacar dama bëgg may leen ma jigéenu Sénégal am raison ay raison voteel sàmm sa kàddu Diop bi dëkk fii raison la Nguuda Dieng raison la Anta Babacar raison la Ndey Top raison la la grande lionne de Cameroun, raison-le Taï, Barina, et raison yu pour voter la coalition Samusakadou. la coalition Samusakadou a la meilleure tête de liste de ces élections Ça m'a beaucoup intercoalition bi ñu Balma, mais nous avons la meilleure tête de liste Barthélémy Toyaz. dama bëgg ngeen defal ko standing ovation cet homme cet homme que vous voyez dama leen di wax dara ànd nawle lañu ànd ànd nawle lañu ñu ànd Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz suñu wóoroon ne nekkul ci senegal ak luy doxal senegal du ñu ànd ak moom su wóoroon déglu leen ma bu baax su wóoroon Anta Babacar ngoom ne ko Barthélémy ci ay pexe la ne du ànd ak moom su ma wóoroon su ma wóoroon ne ci loolu la nek du ma ànd ak moom su wóoroon sëñ mustapha Sy ne ci loolu la nek du ànd ak su wóoroon Khalifa Ababacar Sall ne ci loolu la nek du ànd ak moom su wóoroon Thierno Bocoum ne ci loolu la nek du ànd ak moom su wóoroon Moussa tin ne ci loolu la nek du ànd ak kon dama bëgg ñu xamné cet homme que vous voyez devant vous a tout donné au Sénégal kérok bi ñu demee Tamba kérok bu ñu demee Tamba ñi ko ñi ñu accueillir Tamba ñoo at ñoo accueillir Barthélemy Toye Dias en 2005 à Tamba ñu koy dugal ci kaso bi boobu ñi fi nekk nii di cëppi cëppi ña nga ca la leen neexoon toppatoo wuñ Sénégal lijjanti wuñ Sénégal booba ña ngay lijjanti ay atribution ay attribution syndicale pour ñu jox leen suufu Sénégal pour ñu dëkk ci kon kii Sénégal dafa war a xam ne.

puisse accorder une importance particulière à ce choix qui a été fait par des hommes de raison et de valeur Comme jeunesse au Sénégal au Sénégal Magou Sénégal ndawu Sénégal ne ratons pas le rendez-vous du 17 novembre ne ratons pas le rendez-vous du 17 novembre Sénégal sommes nañu le 24 mars

kon gis ni sénégalais yi le cortège un peu partout au Sénégal le le cortège ci a le cortège des gens qui ont simulé le cortège des gens qui n'ont fait que tromper le peuple Comme les les les Sénégalais. Nous xaar la coalition et l'intercoalition partout au Sénégal réservé un accueil triomphal et que nous eggale liguey bobu le 17 novembre 2024 kon avons lañ ne tay faire nañ ko à ak waxtan ak euh, wa biscuiterie di wax ne Dakar na moko rumbux Sénégal na moko il faut qu'on gagne ces élections le 17 novembre 2024 ñoo ngi leen di gërëm baax wa rahmatullahi taala wa barakatuhu